mbàkk lañ leen di ñaanal mbokki Sénégal suñu mbokki internet Mouride info dal leen ak jàmm seen rubrique journal de la semaine. bi dañ koy doore kàddu yi Serigne Bass Abdou Khadre yëkkati ci CRD bi ñu doon amal fële ca Diourbel li jëm ci. Euh, ndoxum Touba daañu ko fay wala duñu ko fay sëñ Bass euh, indi na ci ay euh, leeral daañu ko seetaan ci biir xibaar yi journée boo xam ne doon nañ ko amal fële ci quartier bu Xawatul Mubarak fii ci diwaanu Touba jëm ci wàllum maye deret bu jugee ci loolu dañuy dem ci wàllum politique Malick Gakou ñëw na fii si Touba doon siyaar si ak di jàll Serigne Mountakha xalif général des Mourides soxna si nga xam ne am na ko te wàcc liggéey ci semaine bi ni mel parrainage Ibrahima Ndiaye Paté bu APR collecte na maanaam am junni ak juróom-ñetti téeméer ci wàllu signature loole nag ma nga soxal wàllu APR euh, parrainage ba tey Serigne Modou Bara Dolly mu ngi oo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, APR euh, frère am yi nga xam ne ñu ngi nekk ci APR ngir ñu gën a takkoo nekk benn ngir waajal li nga xam ne moo di parrainage bu ni mel Serigne Abdou Bara Dolly moom itam Euh, demoon na ca Daaru Gueye ngir euh, commune boobu la nga xam ne luy tolloog sept euh, ci ay conseillers municipaux démissionné nañu ci APR ñëw si fekk si ko ci bokk gis-gis bu ñu jugee ci loolu dañu daal di dem ci CRD Magal Daaru Xuddoos Serigne Cheikh Thioro Mbacké daal dinay fàttali gëdd gi nga xam ne moom la état bi war a jox màggal gu ni mel reportage jàngat muy émission bi nga xam ne soxna Ndeye Thiam Saliou daan leen ko defal jamono ju nekk demoon nañu kër ma Kumba Kebe ñu gën ko xam ci kër kàbbu i Touba pareegul pour di fay ndox Serigne mun Al Bassir khalife général des Mourides li nga xam ne moom la fekkoon rek la fas yéene wéyal loolee di ay kaddu yoo xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir moom moo ko wax ci CRD bi ñu doon waajal màggal Touba 2018 ñu ànd seetaan élément bi. lu dul li may dégg ci rajo bi lu ñu wax ne ñoom nee nañ dañoo bëgg waa waa Touba fay ndox kon nag li may dégg ci mbedd bi moom du ma ci tontu waaye nag comme jaadu na kenn ko ne di laaj ba xam loolu moom demee nu mu ma di leen xamal ne yéegaguma benn programme. boo xam ne wax nañ dañ koy def ngir Touba dafay dox sëriñ bi itam joxegul ndigal ndax moom li mu wax mooy bala ñoo tal ndox mu neex dañ fexe ba ndox mi doy ci dëkk wér gi yaram jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Buqatul Mubarak ni ñu ko waxee woon ci xibaar yi amal nañ ab journée boo xam ne dañuy doon maye deret loolu yëpp itam jëm ci lu dooleel banque de sang ci hôpital bi nañu seetaan élément bu ni mel. donc bu ay jeunes amee initiative bi def ko man li ma doon xaar mooy que jeunes yi ñëw en masse surtout les associations parce que rôle association yi moy ñu ñëw taxawu askan wi donc li sama cëru citoyen la war naa ko mën a def pour dimbali ñi nga xam ne dañu tëdd ci hôpitaux yi te soxla deret mais nag di rafetlu vraiment ñi ko def parce que tey wan nañ ni c'est des leaders politiques ay jeunes lañ mais buñ ñaaxoon nag ni ñoom politique rek mooy seen métier mais dañ ko def parce que dañu xam ni kat ñoom am nañ loo xam ni wàll la ci diggante ak askan wi. te ku nekk xam na ne dimbalante ba dimbalante jeex dimbalante ci wàllu wér gu mom moy bi ci gën ndax nit ki bo amul wér-gu-yaram do am tala jaamu yalla ba taxna lu melni buñ koy def ngir dimbali ñi nga xamantene ci si tay na tey koy teewoo ndax wal hayas bila ëlëk man na doon man ndax doomu aadama man ak man di ñoo and man nga xey yalla suñu borom tek la nattoon ak ci fum ko mëna a jaarale. def lu am solo nak parce que dañoo organiser do descend en plus dañoo organiser conseil consultation gratuite. te ku ne xam na ni dunduk doomu aadama wér moo ci ëpp solo ndax boo wérul doo man lenn li kon ñoom bu ñu jógee seen initiative ñu jug ko jëmale ko ci sante loolu dañuy sant yàlla aussi tamit di ci gën di ñaax te fas ne ko ànd ak ñoom loolu moo waral suñu tànk tey. Malick Gakou euh, ni ñu ko waxee woon euh, ñëw na Touba di ziar si ak def visite waaye itam di jàll Serigne Mountakha Bassir euh, soxna si nga xam ne wàcc na ab liggéey ñu koy ñaanal suñu borom xari ko àjjana loolee seen Mouride Info defal leen ci ab bu yaatu. xam ngeen ne bi. Eh, dafa am dëj te sëñ bi amee dëj Sénégal yëpp am dëj kon nag rafet na eh, bu lu fi mel ni amee eh, ñu bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw jaale si ko jaale ko njabootam jaale ko waa Touba yëpp jaale ko waa senegal yëpp jaale ko mbokku taalibe yëpp kon nag tanku taalibe moo ma andi fi tey taalibe gu mat sëkk loolu moo tax man ak délégation bu mag bi ma àndal ñëw fii. joxe suñu jall ba paré nak setti suma sëriñ sëñ Sidi abdullah bi nga xam ne nii dama fasanteeg moom kóllëre gu mat sëkk sakku si mom ñaan ci li mom bebet jëmele ko ci réew mi walu parrainage lañuy dess ba tay Ibrahima ndjay Paté responsable APR collecte na lu tollu ci jooni ak juroom ñetti témèr ci ay signature lolé soxal APR nañu and sétane élément ba aujourd'hui tay ci jour lancement bi rek. nous avons enregistré 180 fiches soo ko day 1 800 1800 personnes donc c'est ce mooy le liggéey bi avons fas 11 000 am nañ euh, personnes la am na 25 000 bëgg nañ au niveau de la région yo avons ni ñun ñu nek ak de la responsable du mouvement présidentiel bi xeyna président di wax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 ñëpp ay militants président de la République ci loolu buñ ko defee ñun waatu Touba unité ànd nekk benn diiru 3 mois 4 mois unité boobu maa ngi koy wote muy lépp loo xam ne nii ab xuloo la ab jaxasoo boo xam ne ñun daanañ ko amale rawatina man mii di wax ak yéen parce que politique politique la kenn ku ci nekk da ngaa am ay intérêt waaye fii ñu toog tollu tey benn intérêt lañ am. muy intérêt président de la république kon loolu war naa tax ñun ñëpp ñu joxante loxo ci mboolem kilifa yi ñu fi dajee ki fi ak ñi fi ñëwut ndax am na ñu fi ñëwut te xëy na jot gi moo leen ko mayut communes yi ci dëkk bi sax am nañ ay nit ci biir Touba gi kon nan yaatal ubbi suñu bunt bañ a xatal bañ a xiiroo bañ a boole es yi nga xam ne moom la ñuy faral di am tey fii. si soxot yooyu yëpp nañ ko dàq. politique la ñuy des ba tey sëñ Abdou Bara Dolly demoon na visité Daaru Gueye di commune bu nga xam ne luy toll ci juróom-ñaar ci ay conseillers euh, bàyyi nañu APR ngir ñëw fekk si ko ci bokk gis-gis ñu ànd seetaan élément bi. man sëriñ Alaaji Gueye maa àndoon ak yéen di liggéey bañ egg ci 2019 juróomi weer dese leen sones baa ngi nii amuñu fun jëm xale yaa ngi nii defuñu dara jigéen ñaa ngi nii taxawamu amuñu projet amuñu dara may wax askan wi ne bés nekk tey dama démissionné APR dama démissionné APR ma bëgg àdduna bépp ñu xam ne maag sama set conseil démissionné APR si Abdou Bara Dolly honorable député na nga wax Pape Diop ne ko dama démissionné ngir yéen du xaalis du alal dëkk bii laa bëgg ngeen soxali ko politique nag amul sentiment ay calcul la ak intérêt ay calcul la ak intérêt سما انتر جل نكو جل انتر اسكنوي جل سما اخ اخ سما يلف جل اخ اسكنوي اكسين يلف ما قال لي خمل دك بي بو في دفي لو جار ما عندا يو دنا كو غاجي 100% بو في دبوت نالا وتي علم نلر نيون نك بريزيدان باب جوب لن اندال نيون اي غور لن اي طالب لن طالب سيرن توبا لن جاب ناني سيرن بي لي نين واخ في ني يينا فالون ماكي سال waaye lam waxoon ak yéen defu ko moo tax muy gënt del ci ginnaaw Macky Sall jërul dara ndax nit ku sàmmul kàddoom la nit na bu sàmmul kàddoom du julit du murit du gor kon kooku bu ngeen ko bàyyi yéen a yay ndax Sëñ Tuubaa ngeen gëm-gëmu leen keneen kon tey juróom-ñaari conseil APR yi nekk fii te Serigne El Hadji Gueye leen muy juróom-ñaar yu nekkoon si Macky Sall nekk commune Typ ñoom ñëpp démissionné bis gis ki tey bàyyi Macky Sall ñëw fii xam ngeen ni kon leer na leen ni foofu ngeen nekkoon baaxul mais yàlla dogal na bi ngeen ko teelee xam avant 2019 ndax bëgg nañ bu ñu réew mi fii ñu def tëli incha allah di gën fii màggalu Daaru euh, di réunion bi nga xam ne ñu ngi koy waajal ngir màggalu Serigne Cheikh Bamba Khadim Rasoul bi nga xam ko amal le 29 septembre bii di ñëw Serigne Cheikh Thioro yëkkati na fa ay kaddu di wax ne euh, état bi nañu gën a jox gëdd euh, li nga xam ne mooy màggalu Daaru Xuddoos ndaxte kat màggal googilee bu ñu seetloo Daaru Xuddoos amul geneen màggal goo xam ne dina ko woote lu dul màggalu Serigne Touba gilee loola nag na ba état bi war a taxaw ni muy taxaw yeneen màggal yi ci des ñu ànd déglu kaddu Serigne Cheikh Thioro Mbacké ngeen ciy def itam ndax umpule wuñu woon ni suñ ñëwul woon fii itam lu ci war di ngeen ànd ak chef de service yi taxawu ko ba lépp mag waaye dafa am ay màggal yu ñuy seere Touba yu ñuy fekke Touba ñu koy xool di ko fekke lañ ci gis lañu fay def ñun màggalu sëñ Bara gi dekk Mbàkke Kajoor ñu gis lañ fay def waaye bu ma xoolee kayit bi nii ci wàllu hydraulique bi xeebuñu lañ fay def waaye suñ ko mënee yokk ñu yokk ko ndax bu ñu nee ñaar fukki bâche wala waaye yaa na loolu la ak juróom-benn ñun Mbàkke Kajoor fukk la ñuy jox fukki seetal la ñuy jox ak 60 bâche te xam ngeen ne Daarul Xuddus waa kër Cheikh Moustapha yi amul kenn ku fay a geneen màggal seen lépp dañ koo fam tënk ko ci màggal gi kon màggal gi gëdd bi nga xam ne moom la am daye bi mu am nañ ko jox daye boobu waxuñu ñu dox joxee su ko waaye ñu ci gën a mën a yokk ñu yokk ko ba mu méngoo ak yi nga xam ne màggal doomi Sëñ Tuubaa yi ñuy def màggal gi màggalu Sëñ Tuubaa mbokk yi kon fii la ñuy ndar képpe suñuy xibaar ci reportage jàngat di émission bi nga xam ne soxna Ndeye Thiam Saliou dema demaloon na leen foofee ca kër ma Kumba Kebe ngir jàngatal leen la nga xam ne moo fay xew di jafe yoo xam ne askan wa ña ngi koy dund rawatina ca wàllug euh, dobine boobee nga xam ne muy abattoir ba nga xam ne Abdoulaye président Abdoulaye Wade moom moo ko fa defoon euh, xeet gu bon ga muy dégagé loolu def nañ ca ab jàngat euh, reportage bi indi na jafe-jafe ak naqar yi nga xam ne maanaam moom la askan woowee la di jànganteel nañu maasa seetaan élément boo koy xool daanaka maanaam bi Abdoulaye Wade bàyyee réew meeg léegi maanaam biñ ko fi ubbeeg léegi daanaka jafe-jafe yooyu ci la ñuy dëkk. ndax fi mu sax da fekk nii tey maanaam mu toog nii ngelaw li xaw a am fu mu jàll waaye daanaka heure ngoon boo fi toogee fi mu toll daanaka noyyi bi sax doo ko bëgg a doo def reer bu jotee sax doo bëgg reer ndax maanaam xet goo xam ne maanaam la yàlla xam daal doy na daanaka daal mëneesu ci daal maanaam daal lañ mëneesu ci la wax wax boo xam ne daal daanaka daal xaw naa kii daal waaye bu guddi jotoon tey jii boo toogee fii soo bëggee reer wala nga bëgg kii daanaka da nga dugg sa néeg sax boo ci duggee cuuraay sax boo ko ci taaloon daanaka doo xam loola xeetu cuuraay gi nuru daal loolu daal doy na waar loolu. feebar même suñu jur gi sax day feebar ndax dañ koy naan ginaar yi yëpp dañuy fi dañuy dee ndax xet gi xam nga ni xam nga gone itam am na loo xam ne mu ko te ñun bu ñu waxee rek ñu wax ñu ay wax yoo xam ne daal duñ ci def dara neewoon nañ ne danañ ko saafara mais saafara wuñ ko. mais jaaxle nañ ci nag moom bëgg kuñ ci dimbali ndax euh, nit ki euh, yaram moom mooy moo baax ndax ñun fii biñ fi depuis jën bi dikk feek léegi feebar bi fi am musu fee am. waaye léeg-léeg damay dikk di leen seeti waaye su ma dikkee du ma fi mën a am ñaari fan ndax xet gu naqare gi ma ne leen gii xet mag mënu koo dénku ndax soo tibbee di sax sax boo wanaa soo sax xet gi day ànd ak tibbi di dem ndax loolu wóor na wala wóorut ah ñu ne ko ma jàppoo ko. léegi fii bu guddee duñ xam jàmm yooyu duñu bëgg a rey ànd xet gu bon gi ah lii lépp nekk fi ah kon nag lii ku ñu ci dimbare rek ñu jël. ñu si mën a dimbali daal moom soxla nañ ko si ndax wératuñ liggéeyatuñ ndax tool bii ci lañ daan liggéey di ci jëriñu ay salaat ak yooyu. mais loo fi def fi mu toll nii du baax waaw boo duggee ci biir plan yaa ngi nii yëpp dafa yàqu sa sax yi ñooy ñooy ruuru ci biir di ko yàqu. waaw kii fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi jox leen dig daje ba beneen dimanche bu leen fàtte di ba suñu bouton abonné ngir di mën a jot xibaar yi waxtu wu ñu ko dugalatee.